tey jii si talaata fukki fan ak ñett si weer wi ambassadeur Israël bu bees bi di Roy Rosenblit yëkkati lu toll si juróom fukki xar fas yéene ko jox néew di doole yi ginnaaw loolu ñoom ñi nga xam ne ñoo ko jot rafetlu nañu lii mu def itam yàgg nañu ko jot at bu ne. xanaa jëf ju rafet rek ñu ñaan yàlla fay ko ñëw bu bees bi mu fi ñëw yal na ko fi yàlla saxal ñu fi wut yal na ko yàlla may lu mu bëgg yal na ko fi yàlla defal lii dafa neex baax. waaw ah, jotoon naa daaw jéeg waaw daaw mënumaa ñëw ndax feebaroon trop ak sama jëkkër feebar tam waaye koo xam ne tabaski jot na nga war a tabaski yoruloo nit jóge ci àll ba ñoo jox la tabaski kooku yàlla rek ka mën a fay. Cette rencontre est mon sur le Sénégal. Le premier cours de l'histoire du Sénégal et de, l'Afrique a eu lieu ce, ce week-end à l'île de Gorée. L'histoire permet de connaître les peuples, elle permet de construire des ponts entre les, les États et les peuples. Je suis impatient de découvrir les, les autres facettes du Sénégal et de la population. bi mooy fukkeelu at bi mu leen di dimbali ci ay xar kon nag xar mi moo la ko jox nga tëbasee ko yàgg sa njaboot ñu lay ñaanal yàlla tabaski jàmm nawetu jàmm te sa njaboot am jàmm réew mi am jàmm réewu àddina bi yëpp am jàmm yal yàlla jàmmal ñu jàmmal leen jàmmal mbooloo mu jullit moom it ñu ngi koy ñaanal sutura ak barke ci li nga xam ne moom lañ ko fi yónni mu dox si ko fi di fi liggéey si ci pour réewam yal yàlla defal ay ndam mu jubóog ñoom ci jubóog ñun jubook Sénégal yëpp ci ñam yooyu incha allah. li mu bëgg yàlla defal ko fi ndax ñun ñu yàgg nañoo dimbale. Mm-hmm. wax dëgg yàlla bi may dixième année bi waaw ñu ngi koy ñaanal lépp lu mu bëgg rek yàlla na si réussir. di ko di ko xamal ne ñu kontaan nañu trop suñu xol seet na man dama mënut wax si micro nag waaw maa ngi jégalu baax waaw waaw Xaadim Diop waaw. yàlla na yàlla dem mu seddal seen ko ay ati ati lépp liggéey bu mu bëgg liggéey bépp liggéey bu mu bëgg liggéey Sénégal yal na ko ci yàlla jàppale yàlla na yàlla matal mission am kontaan nañ kontaan nañ ba fa kontaanee am waaw. waaw waaw ñun ay néew ji doole lañu gis nañ ko ñu dimbale kon nag mënuñu def lu dul kontaan bég nañ bég nañ bég nañ yàlla na yàlla doole guddal fanam. ci barke yonent bi sallallahu alayhi waaw ambassadeur yooyu bu ñu defoon ñëpp ñëpp dañuy tëbës kenn du manqué nañ faxee jëm koo def kii dee bégloo nañu te nit ñu bégloo ne yàlla na ko yàlla bégloo xolam béglool ko ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi waaw maa ngi ko soog a am déedéet am naa ko daaw jéeg daaw aw ma ko daaw jéeg am naa ko renti maa ngi a am mais kontaan rek di ñaan yàlla yàlla guddal fanam ñu continuer ay ati ati at waaw ba kenn du xam fu mu ma yem daal kontaan nañu ambassadeur yëpp na maa ngi ñaan ñoom yàlla def ñoom ñoom ñu def ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man maa ngi jógee Géejawaay